Okay, Alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi dellu sant suñ borom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñu dajawaat ci am néegam fas yéenee jël benn bind ci liy leeral suñu diini moo aju ci wàllu fiq ñu doon topp téere bi di minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah ñu ngi yegsi woon ci li ñu tuddee jumlatu uqud ba waroon a jël tey almaddatu thalitha mi ngi noonu fi lmusaqat walmuzaraa bu dee ñu yol mool bu bés bee ñu ngi ci page 317 bi almaadatu thaalisa fi lmusaqati walmuzaraa naam su dee bokk nañu koo gis day wax li nga xam ne mooy almusaqat mooy nit ki jël surga bu koy arroseel taarifuha suñ ko doon xamle almusaqat hiya i'taa'u naxl lii di sakku arrosé mooy nga jël jox lii di ay tàndarama aw shajarin walla ay garab aw naxlin wa shajar wala tàndaram yu ànd ak garab liman yaquumu bi suqyihi ci kuy taxaw ci di ko arrosé wa amali saairi ma yaxtaaju ilayhi ak jëfi lépp loo xam ne nii lii di jardin ba da koy aajowoo min xidmatin ci nam koy taxawoo bi juz'in ma'lum lool nag pay ga mooy benn cër bu ñu xam fii samarihi ca meññent ma nga xam ni mushaa'an fiihi moom mooy jóge ca jardin ba mboola seen kon mbokk loolu moom la ñu wax fii jàpp surga daanaka ñu bëri ci waa Dakar jëflante boobu defuñu ko boo demoon ci ñaay yi nag bari na fa lool ak lenn ci àll bi te mooy nga jël surga boo xam ne dañ koy jox ab jardin moom mooy ñëw di ko arrosé ngeen déggoo ci ne tool bi kat bu paree yow da ngay jël cër sàngam ma jël cër sàngam te la cay génn ci meññeent ñu ngi noonu léegi nag xukmuha lan mooy atte loolu ci sharia te loolu it bokk na téere bu suñu maam yi daan jàng muy laxdari dañ naan du dagan ci jullit an yafaala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fii jullit bar ngaa dugg ci dara war ngaa laaj ba xam luy atte yàlla ci loolu loo tax yow mi yor sab téere mu ne almusaqatu jaiza jàpp surga mu arrosel la ngeen séddoo mbay ma loolu lu dagal la wal aslu fi jawaziha lay cosaan ci ne loolu lu mën a nekk la amaluhu sallallahu alayhi wa sallam mooy jëfam ja sallallahu alayhi wa sallam wa amalu xulafaihi rachidina min baadi ak jëfi xalifaam yu jub yaka wuutu gannaawam faqad axraja albuxaari an ibnu omar radiallahu anhuma buxaari day soloon ab xadis jële ci ibnu omar an nabiya sallallahu alayhi wa sallam amala ahlal xaybar moom day liggéeyloo naag waa liggéey loona waa ahlu xaybar te yahud ya bi chatri ma yaxruju minha ci genn wàllu lay génn ca jardin ya ay min ardi xaybar ca suufas xaybar min zarin ca mbay ma cay jóge wa tamrin ak tàndarma da cay jóge kama amda hadihi almuamala noo nit li wéele boobule jëflante min baadihi ca gannaawam mi ngi noonu abubakar wa omar wa usman wa ali radiallahu anhum day joxe lan mooy tegtal ci ne nit ki nga jox ko ab tool mu koy arrosé ngeen déggoo ci pay gi mooy bu ñu paree nga am cër boo ko ca jox rasul sallallahu alayhi wa sallam bi mu xëyee xeeg yahud ya nekkoon ca xaybar yahud yooyu xam ne ñu ci bari sax madina lañ jóge woon ñu noonu di bani nadir ak bani xuynaqa xuynaqa ñu dem dëkki xaybar gannaaw ba lañ comploté ak waa quraish ca atum ñeenteel ma ci ghazwatu ahzab ngiree faagaagal diine yàlla dàq leen ca atum juróom benneel ba la leen yonent bi alayhi salaam dem jihaat ak ñoom yàlla dogal mu gañe leen bi dara desul lu dul ñu dàq leen fa ñoom ñi ñoo proposé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun ñoo leen gën a xam mbayum tàndarma léegi bàyyi ñu fi ñun ñuy liggéey tàndarma ji su mbay mi paree ñu seddoo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dañ leen saxal ci loolu lañ ca saw loole gis nañu yonent bi bàyyi leen fa heure boo xamee ne nii mbay mbay nañ ba at mi jeex ñu daal di séddoo mbay ma bokk na ca luñ ko laajoon nag ñu yónnee rek ku maandu koo xam ne mooy séddale mbay mi yonent yi yónnee leen abdullah ibnu rawaha kenn ci ndaw yu sahaaba yi bi mu ñëwee yahudi teeru ko jox ko ay cadeau ngiree ger ko mu ne leen waa lii lan la ñu ne ah dañoo bëgg rek booy séddale rek séddale bi nga jaarale ko ci yoon mu ne tey leen seeni cadeau wallahi maa ngi jógee ci ki nga xam ne moo gën ci nit ñi moom laa gën a bëgg ci nit ñi ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yónni ma ci yéen ñi nga xam ne yéen laa gën a bañ ci nit ñi demoon ci ay mbaam xoox ma ma gënal ñëw ci yéen waaye nag maa ngi leen di seedeel ne bëgg gi ma ko bëgg ak bañ gi ma leen bañ du tax mukk ma ñàkk a maandu seen diggante yahudi ak li ñuy saay saay saay ne waaw lii day moo tax asamaan ak suuf taxaw ba tey ñoom xamoon nañ ni diine lislaam dina ji maandu la kon loolu lu mën a nekk la nga jël nit jox ko tool ba yaa koy arrosé lu ci jóge ñu seddoo ahkaamuha ana yenn atte yoo xam ne nii it moom la ca sharia tënk ahkaamu musaqat hiya atte yi nga xame ne nii dana mën a aju ci jàpp surga mu arrosel la mu indi ci juróom-ñett ba ca jëkk an yakuna naxlu aw shajar day fekk ne tàndarma ya wala garab ya maaluman inda ibrahim al aqd loolu lépp day nekk lu ñu xam ba ñuy fas tëral pas-pas ba pas-pasu contrat ba fala tajzi almusaqat fi majhul du dagan ñuy jëflante arrosé ci loo xam ne kenn xamu ko xasiyata algarari wa huwa xaram ngiree ragal ak lor ca loolee lu xaram la ca mooy heure boo xamee ni nii dañuy jël ab surga dañ koy délimiter tool ba muy arrosé ñu xam ne ko fii nga commencé fee nga yem mu xam ne lii muy waru garam ngiri nga jël ko noonu rek xamul nu mu demee ëllëg nga naan ko yow defoo lii ak defoo lii te moom jàppoon ne ne loolu bokkute su mel nii day dal ay mbindaan wala dal ci yenn ouvrier yu bëri gis koo xam ne day yor mbindaanam xëy na la ngeen charto woon mooy na lay baleel na lay fabereel mi nga noonu nga xëy xëy jor ko am fóot wala xëy xëy na ko yaay togg wala xëy xëy def loo xam ne nekkul woon ca contrat ba te mooy contrat général ay jullit heure bu ñu bëggee liggéey seen diggante lépp lu aju ci liggéey ba dañ ko war a tëral ca njëlbeen lépp lu ca bokkul kenn waru ko ca dolli te loolu it léeg-léeg nga gis ay nit ñuy liggéeyloo nit ay maçon ay peintre ay nangam liggéeyal ma lii nga dem a dem a dem ba liggéey bi waaj a jeex nga ne ko waaw def ci lii nangam ak i nangam mi ngi noonu may fàttali benn xale njaago bu dégg wolof benn ci waay daf ko woo liggéeyloo ko ba pare ba liggéey bi jeex mu ne ko waaw bul fàtte nag defaale lee mu ne ko ah ku dollu cere day dolli ñeex waaw waaye kon loolu moo ko mooy mooy mooy charte bi ala kulli xaal doomu aadama bi heure booy liggéeyloo nit da ngeen di xam fu ngeen di tàmbali ak fu ngeen di yem ñaareel bi ani yom yor téere mu ne an yakuna al juzul mu'ta lil amil ma'luman la ñuy war a jox aji liggéey ji it du lu ñu xam ka rubu'in aw xumsin masala mooy avant muy liggéey wan nañu xam waa bu mbay mi ñoree lan la ci am ndax kaar bi lañ koy jox wala dañ koy jox un cinquième mooy xaaj ko juróomi xaaj jox ko benn wan an yakuna mushaan fi jamii naxl aw shajar te pay ga it day jóge ca la meññe ca mboole mi tàndarma wala mboole mi garab is law xasara fi naxlin aw shajarin xaas ndax bu dee pay ga dañ koo tënk ci tàndarma wala ay garab yoo xam ne dañ koo jagleel xat yusmiru waxat laa yusmiru garab yooyu mën nañoo meññ mën nañoo bañ a meññ wa fi zalika gararun yuharrimuhu lislaam loolu war la goo xam ne lislaam du koy araamal te mooy buñ jëloon nit ku ñuy arrosel suñu tool dañuy tëral kay tool bi yépp li ci ñoree temps nga ci am waaye da ngay gis loo xam ne dañ ko jàng ci kanam insha allah jëflante gu caddo yi nekkoon Madina daan jëflante te it mën na am na suñu réew ba tey ñoom xam nañu seen tool xam nañ ne tool bi fi moo gën a meññ côté bee moom la muy jur du baax su ko defee buñ jëlee ab surga dañ naan ko waaw léegi yaay arrosé li ñore wàll gi maa moom li ñore wàll gi yaa moom te xam nañ ne côté moom dara du fa baax loolu nag lislaam du ko nangu pay gi kay day jóge ci tool bi yépp mi ngi noonu ndax lii mën naa meññ leen mën naa bañ a meññ ñetteel bi mu ne ala al aamili an yaquuma bi kulli ma yalzamu l islaahi naxl aw shajar day war ca kay liggéey mu taxawee ci lépp loo xam ne nii dafay lënkoog yéwénal tàndarma ya wala garab ya mimma yajri al urfu an yaquuma bihi al aamil ci loo xam ne dana dox lañu xam ci aadane ab surga buy arrosé kat day taxawe ca loolu fii musaaqaat mi ngi noonu ca arrosé ga mi arrosé mi ngi noonu te mooy buñ jëloon ab surga ne ko moom mooy arrosé tool bi ku ne xam ne ne ab tool soxlawul arrosé kese daa soxla defar garab ya defar taatu garab ya fexe ba ndox mi du jàll sàmm ko ñag ko lépp lu aju ci loolu ci aada ñu xam ko loolee da ngay gis ne ah dañ koy considéré ci loolu dana aju ci jëflante ci bari masalan benn min naa ni ngi nii ngeen jëflante ñaata nga may fay temps ah bu subaa nga xëy si ci cadre ñu xam gox ba ab mbindaan lu mu fay liggéey bu dee ne ci loolu lañ yem jëflante boobu it islam dana ko nangu mi ngi noonu ñeenteel bi yow mi yor sab téere in kaana ala al ardi al mu'taati musaaqatan xarajan aw dariba su dee ne dafa nekk ca suuf ba nga xam ne dañ koo joxe ñu war koo arrosé dafa am luñ cay génnee di ko jox borom suuf ya mi xaraj wala impôt boo xamee ni nii dañ état ba moo ko ci tëral fa hiya ala al malik duna al amil loolee moom borom tool ba moo koy fay kay arrosé yoonam nekku ci isil xaraaju awi doriba ndax la ñuy jox borom suufu cosaan ba wala impôt ba mutaallaqun bil asl dafay lënkoo cosaanu suuf sa bi dalil anna dariba madfua tegtal ba mooy impôt dañ koy fay walaw lam tuxras al ard donte ne suuf ba kenn jëmbatu fa dara aw tuzra wala ñu ji fa dara mi ngi noonu kon bu dee lu aju ci yooyu nga xam ne nit ñee ko tëral di ko jël ci suuf kay arrosé yoonam néew ci mu des nag leneen yow mu yor sab téere mu ne am na zakat bu dee ne nag zakat moom fa hiya ala man balaga nasibuhu min as-samari nisaaba mooy képp koo xamee ne nii jot na lii di nisaab walla gam am ci meññante ba sawaun kaana al aamil na doon kookee kay liggéey la aw rabbul ard wala borom suuf sa isi zakatu mutaalliqa bi samari nafsiha ndax zakat moom dafay aju ca meññante ba te loolu it mbokk tey waa ji jël na ab surgaam muy arrosé toolam bi ñu paree ñu séddoo ku nekk dañuy xool te yonent ba alayhi salaam waxoon mooy xam sa ta aw suq masalan bu doon ay tendrement ñu gis ne kii day moom am na ci lii di trois cent sa à peu près ay six cent kilos borom tool bi day génne zakatu boppam surga bi génne zakatu boppam su dee lam am ca tool ba mat na nisaab su dee lam am ca tool ba matul nisaab zakat du ko war loolee kon dañ koy bàyyi xel loolu it dañ ciy jàngal ni ñaar wala ñett ñoo xam ne ñoo bokkoon di bayub tool tool boobee ba mu ñoree ñu séddoo ko da ngay gis mën naam bu doon kenn ko moom zakat day war ci ñoom ñi day day war ci la ca meññi mais maadaama ñoom ku nekk daa am sa wàllug bopp ku nekk yow yaay génne sa zakatu bopp su ko defee ànd génne zakat ci lu ñu booloo loolee ci jur lay am ci jur lay am mais du am ci la nga xam ne mooy mbay yaag xaalis yaag yu deme noonu bu doon ak jur nag tey jii masalan ñeen fukki xar fu ñu dajee ren ba déwén zakat da caa war kenn ko moom day génne zakat ñett ko moom day génne zakat maadaama ñoo bokk fu ñuy fanaan bokk fu ñuy leen di sàmmi waaye bu dul ak jur moom ku nekk sa wàll la ñuy xool ndax mat na nisaab wala matul nisaab bu ñu delloo ci la nga xamee ni ni mooy juróomeel bi ci yow mi yor sa téere tajuuzu almusaaqaatu fi l usul day nekk loo xamee ni nii dana dagan ñu jàpp surga arrosé ca cosaanu garab ya ka an yadfaa rajulun lil axar ardan mi ngi mel nit jëloon woo keneen jox ko suufas kese li yaxrisaha naxlan aw shajara te ku kat fexeel jëmbat ko ay tàndarmoole garab wa yaquumu bi suqiyihi gannaaw ba mooy taxaw di ko arrosé wa islaahihi ak di ko yéwénal illa an yusmira ala an lahu rubu buñ demee ba meññi nag na doon dañuy d'accord ci ne kaar ba lay jël min hu ba jóge ca tool ba aw sulus wala ceer ba masalan yooyu ay misaal la waaye nag bi charte an tuhaddada al muddatu bi ismaariha masalan fokk ñu daal di tëral temps ba nga xam ne dañ koy wax ci loo xam ne day aju ca meññente ma fa lay war a ñore wa an yaquza al amil nasibuhu min al ardi wa shajar ma'an su boobaa it ka nga xamee ne nii mooy kay arrosé day jël wàllam ca garab ya ak wàllam ca lay génn ca meññante ma mi nga noonu kon loolu mbokk mooy wane ne du ne rek nit ki da nga koy woo mu arrosé kese waaye mën nga ko woo jox ko suuf kese mu jëmbat ko ngeen d'accord séddoo ko su dee ne da ngeen d'accord ci loolu mi ngi noonu bu dee ne juróom benneel bi yow mi yor sa téere lil amili in ajiza anil amal ka nga xam ne day liggéey su demee ba lott mënatul a liggéey bi nafsihi ci bakkan boppam islam dana ko may an yuniba ghayra ci mu remplacer keneen ku dul moom walahu samaratul mustahiqa bil aqd teewul mu yeyoo meññent ma ñu tëraloon ca la nga xamee ni nii mooy pastas ba moom nag mooy xool nu muy fayee kooku nga xam moo ñëw di ko remplacer juróomeel bi juróom-ñaareel bi in hariba al amil qabla badau samara su dee ne liggéeykat ba daa daw dem avant meññente ma di di di di feeñ mooy la nga xam ne ni mooy meññente ba commencé ñor fa li rabbil ardil fasq ka moom suuf sa su ko neexee dindi contrat ba wa in haraba ba'da badawi samar suñu demee nag ba ñu gis meññente ma commencé na génn a waaja doog a dem su booba aqaama man yu tay man yu tay man yatamim yutammimu mu ngi noonu aqaama man yutammimu al-amal day remplacer koo xam ne day yeggala liggéey ba bi ujratin min nasib al-amil fay goo xam ne day jógee ca cër la mu waroon a fay kay fay amma bi ci mujjoon in maata al-aamilu ka nga xam ne moo ñëwoon di arasa tool ba su faatoo fa li warasatihi an yunibu ghayra ña koy doon mën nañu remplacer keneen mu yëgal liggéey ba min tarfihim ci seen wàll wa in ittafaqa tarfan ala al-fasq futiqat al-musaqa ñaari côté yépp nag buñ dëppoo ci ne nañ prix contrat ba su booba loolu nga xam ne mooy contrat boobu dañ koy firi mi ngi noonu bokk loolu moo aju ci borom téere bi ni mu teqalee ci ki nga xam ne dañ koo jël muy nekk di arrosé bind bi ci tege sorewul ak moom moom la ñuy tuddee al muzara muzara a mooy kii moom da nga koo jox tool muy bay tool bi mën naa am sax arrosé du ca am li nga noonu ma musaqat loolu moom ci ay jardin lay nekk loolu tax yow mi yor sab téere mu ne almuzaraa taarifuha almuzaraa hiya an yadfaa rajulun lil axar ardan yazra yazrauha muzaraa moom mooy da ngay jël suuf jox nit ne ko moom mu daal di koy ji daf ko mbay ala juzin muayin mushaa fiha la nga xamee ni nii moom mooy pay ga mooy cër boo xam ne day génn ca tool ba loolu mooy pay ga xukmuha lan mooy atam ci sharia ajaza almuzaraa jumhuru sahabati waltaabiin wal aimma daganal na loolu day mbooloom sahaaba ya ak ñu topp seen gannaaw ak njiitu diine ya wa mana'aha axarun doonte ne am na ñeneen ñu ko tere wa dalilul mujziin mujziina ña nga xam ne ñoo tegtalu ña nga xam ne ñoo ko daganal muamalatihi ci jëflen mooy muamalatuhu jëflante ak yonente ba ahlu xaybar lam jëflante woon sallallahu alayhi wa sallam ak waa xaybar bi chatri ma yaxruju minha min zarin wa samar te mooy toog leen fii di bay tool yi ak jardin yi ngeen jël genn wàllu lay jóge ca tool yi ak jardin yi faqad rawa albuxaari an ibnu omar radiallahu anhuma buxaari ak ibnu omar solo nañu anna nabi sallallahu alayhi wasallam amala ahla xaybar def leente na ak waa xaybar bi chatri ma yaxruju minha te genn wàllu lay génn ca loole min zarin ca la nga xame ne ni moom mooy mbay wa samarin ak meññeen comme niñ ko jànge woon ci gannaaw loolu daan jóge xaybar fa kaana yu'ti azwaajuhu azwaajahu mi'ata wasq yeneen ci bi alayhi salaam daana jox njabootam nga ñuy dundee la nga xam ni moom mooy téeméer ci ay wasq ñu ngi noonu wasq bu nekk day nekk soixante sa samaanuna wasqan tamaran juróom-ñetti fukk wasq ci tàndarama wa ishruna wasqan sha'iran ak juróom ñett ñaar fukki wasq ci orge loolu la njabootam nga doon dunde sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu te loolu mi ngi noonu wa hamalu mimma ruya min nahyi an muzaraa yóbbu nañu la nga xam ne dañ koo tere ci ne jox nit ki suuf muy bay ngeen di séddoo dañ koo tere imma ala annaha kanat bi shay'in majhul lañ cay tere mooy lu ñu teg ci loo xam ne nii dafa lënt kenn xamu ko muhtajjiina mi ngi noonu bi xadis rafi ibn xadish ndax kat ñoom la ñuy tegtaloo ci loolu muy xadis rafi ibn xadish radiallahu anhu is qaal jamono ba muy wax ne kunna min aksari al ansaari xaqla ñun day ñoo ëppoon ci waa ansar ay tool fa ka fa kunna nakri al arda ñun day dañ daan nekk di luya suuf sa di ko jox ñeneen ala anna lana haasihi wa lahum haasihi su ko defee ñu ne hey wàll gi ñoo moom wàll gi ñoo ñoo moom fa rubbama axrajat haasihi wa lam taxruj haasihi léeg-léeg côté bi day am lu mu génn mbay côté bi du génne dara fa nahaana an zalik yonent bi tere ñu loolu aw annaha loolu kon ñu bëri ci lañu jàpp moo tax yonent bi tere ko aw annaha lil karaha wala boog ñu xam ne buñ ci déggee ak tere it dañ koo sib rek waaye du lu ñu xaraamal karahatu tanzihiya mooy sib gu ñu ragal mu yóbbuñu ci lu xaraam bi dalili qawli ibnu abbas radiallahu anhuma ci tegtal ba mooy waxe ibnu abbas inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam lam yanha anhu yonent bi terewul loolu walakin qaal waaye da doon wax an yamnaha ahadukum mooy mu baaxe woon kenn ci yéen axaahu doomu ndeyam xayrun lahu min an yaxuza alayhi xarajan maaluman loolu day moo gën ci muy jël ci moom lii di ak xaraj muy galak di ak pay gu ñu xam te mbokk ci gàttal mooy tey waa ji am na suuf ay surga ñëw nga jël la nga xam ne mooy aw jiwu jox leen leen demañ ca tool ba ngeen ji lu ca ñore ñun ñoo koy bokk islaam day nangu loolu la ëpp ci borom xam-xam yi ci sahaba yépp nangu nañu loolu mu ne nag bu dee ne am na xadis bu koy tere lañ koy tere rek mooy ki nga xam ne dafa ñëw na surga yi bay leen tool bi wàll gi maa moom wàll gi yaa yéen a moom te wàll gëm tëral ne moo moom mën na am foofu la mbay ma gën a baaxe loole moo ci ne waaye bu dee ne ñoom ñëpp ñoo d'accord ci ne mboolam liy génn ci tool bi ñoom ñëpp ko bokk ci wàllu googee da ngay gis ne loolu lu mën a nekk la lu baax la muy liggéey boo xamee ne nii bu doon tane ne doomu aadama yi jukko yi yàquwul da ngay gis ñu bari mën nañ ci liggéey bari tey ci nekk ci taax yi mën nañu dem ci àll bi ut fay suuf jox ay nit ñu koy bay waaye da ngay gis lu bari ci nit la leen ci nit ñi def bari na sax ci sama benn waay bu ma xam fële la dem ci Richard Toll jënd fa toolu ceeb investir fa waaye la ko gaa yi def moom jéggi na dayoo ala kulli xaal loolee mbokk da ngay gis ne lu sharia ubbi woon la njëriñ mu jëriñ ñëpp jëriñu ci waa ji yor xaalisam jëriñu ci waa ji yor dooleem jëriñu ci am maa nekk ak dëng day yàq da lay yàqal yàqal keneen loolu mooy problème bi ak dëng da lay yàqal yàqal keneen loolu kon mbokk moo aju ci loolu yonent bi ne alayhi salaatu salaam bi doon wax naan bala ngaa woo benn waay naan ko bàyyil sama tool bi ñu séddoo la gënoon mooy nga abal ko tool bi rek nee na loolu moo gënoon nga abal ko tool bi mu mu bay ko wala boo ko koy may nga may ko ko moo gën moom mu jël tool bi di ko liggéey pare ngay séddangum la ca nekk donte ne loolu lu dagan la loolu kon mbokk moo aju ci wàllu géej léegi nag moom it comme nam ko waxe woon ci musaaqaat mu ne ahkaamuha ana yan atti moo ca mën a aju te lu sharia di nangu ak lum dul nangu ahkaamuha ahkaamul muzaaraa hiya attey la nga xam ne mooy jox nit ki tool mu bay ko mooy lii an takuna al muddatu mahduda muayyana ka sanatin masalan fokk tool boobee nga koy jox ñu xam jox bi ñaata la durée imma nga ne ko jox naa la ko at wala jox naa la ko ñaari at muy benn ñaareel an yakuna al juz'ul muttafiqu muttafiqu alayhi muttafaqu alayhi mu nekk cër ba nga xam ne dañ caa dëppoo ma'lum al qadr mu nekk lu ñu xam kem ba ka nis aw sulus aw rubu masalan mooy fokk bala ñoo départ ñu xam borom tool bi ñaata la ciy am surga bi ñaata la ciy am a doon genn wàll ceer wala kaar wa an yakuna mushaan fi jamii ma yaxruju min al ard mu nekk luy génne ci mboolem lay jóge ca tool ba mboola seen suuf ba yépp falaw qiila laka ma yan ma yanbutu fi kaza lam lam tusax su doon dañoo tëral ci ne wàll gee ca tool ba nga moom wàll gee maa moom islam du nangu loolu ñetteel bi an yakuna al bazr min saaxibi al ard ka moom tool ba moom moo war a indi jiwoo moo war a indi aw jiwoom amma in kaana al bazru min al aamil fa hiya al muxaabara su dee ne tool ba ka kay taxawe mooy indi jiwu wa loolu dañ koy tudde muxaabara te loolu moo gën a tar ak juyoo ci borom xam-xam yi mooy ña nga xam ne juyoowuñ ci ne nga jël tool jox ko nit ak jiw mu liggéey loolu da ngay gis ne ñu bari ca ñoom juyoo nañu ci ne du dagan nit ki nga koy jox suuf jox ko jox ko suuf si mu indi aw jiwam ba pare ngay séddoo ak moom wal xilaaf fi jawaasiha ashud juyoo ga am ci ne ndax loolu dagan na moo gën a tar min xilaaf fi muzaaraa te juyoo ga am ci borom tool bi indi jiwu boppam li qawli jaabir radiallahu anhu naha rasulullah sallam anil muxaabara mu ne yonent bi da daan tere loolu ñu nga xam ne moom la ñu tuddee muxaabara te mooy jox nit ki suuf kese mu indi jiwu boppam bay ko ba mu pare ngay séddoog moom waaye bu dee yooya moom suuf moom jiwu islam bañul loolu bokk na ci ba tey law ishtarata rabbul ard aqza bazrihi min al mahsul bu doonte ne borom tool ba dane bala ñoo séddoo kat damay jëlaat kemuk jiwu wa ma joxe woon ci tool bi te mu jóge ca tool ba qabla qismatihi avant ñu séddoo wa ma baqiya fa huwa lahu walil aamil la des nag mu dokkoo ñeel moo koy arrosé bi hasbi mashtarataahu ca kem lañ ca déggoo woon lam tu sax muzaraa loolu it islam du nangu boobu jëflanteeg mbay waa ji nga jox ko tool masalan jox ko cent kilos pep mu ji ko nga ne ko nag bala ñoo séddoo sama cent kilos pep day génn ba pare déedéet moom kay da ngeen di bokk lépp rek ci moo indi dooleem yow nga indi sa say pexe mi nga noonu gannaaw loolu it mu ne kiraul ard bi samanin naqdan awla min al muzaraa nañu xam ne lii ñuy wax sànq lu dagan la jox nit ko tool jox ko jiw mu ngeen séddoo waaye nag nañu xam ni luye woon tool ci xaalis loolu moo gën luye tool ca la cay meññee loolu mi ngi noonu li qawli rafi ibn qadish ndax xadis boobu nga xam ne sahaab yi boobu nettali na ko amma bi zahab awil waraq falam yanhana yonent bi daal lépp lu ñu mën a tere ci séddoo mbay moom musuñoo tere ki nga xam ne day luye ab toolam te loolu it lu mën a nekk la yor nga sa xaalis nawet jot na wala noor nga dem gis borom tool ne ko luye ma sa tool bi diirub tant de mois wala diirub un an ngay bay la ca génne ngay jël moom nga fay ko xaalis likit loolu islam day nangu loolu bokk na ci li mu wax ba tey yustahabu liman lahu ardun zaidun an xaajatihi doon nañ sopp day ke am suuf boo xam ne daa romb aajoom an yamnahaha axaahu lmuslim bila ajar mu dem daal di koy laaye biir jox ko mbokkum julitam bañ ko caa laaj benn pay li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi daana wax ne man kaanat lahu ardun e waay ku am suuf fal yazraha na ko na ko ji ba mu ko bàyyi noonu rek mu neen aw li yam naxaxa axaahu wala bokk mu baaxee ko beneen mbokk juritam waaye kenn seen moom tool rek bàyyi tool bi noonu mu vide imma ji ko wala nga jox ko ku ko ji wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam an yamnaha axaahu xayrun lahu min an yaxuza alayhi xarajan maaluman nga laayewoon ko biir jox ko sa mbokkum julit mu jëfandikoo ko day moo gënal nga ko tey fayu la nga xam ni mooy xaraaj bu cay génne donte ne mu ne al jumhur ala man i tajiril ard bi taam la ëpp ci borom xam-xam yi nag nanguwuñu la nga xam ne muy luye ab tool ci ñam masalan nga luye ko tool bi ci ni mu lay jox nangami saaku dugub wala nangami saaku gerte loolu islam du nangu loolu tool kay buñ koy luyee xaalis rek lañ ko mën a luyee mais kenn du ko luyee ñam is fihi maana bay u taami bi taam nasia wa mutafa mutafadilan wa huwa mamnu ndax loolu day mel ni jaaye ñam ci ñam ci loo xam ne ab bor la ak i ëppalenti islam dafa tere loolu wa amma ma ruya an ahmad min jawazihi fa huwa mahmul la ñuy wax ni imaamu ahmad nee na lu mën a nekk la fa huwa mahmu mahmul ala al muzaraa loolee lañ ca jublu mooy muzaraa bi jàng sànq te mooy nañu ànd bay daal di séddoo may bi mi ngi noonu jubluwu ci ni laa ala tajir al ard bi taam waaye ahmad waxul mukk ne day dagan ci doomu aadama yi di jëflante ci la nga xame ne ni mooy luye ab tool di ko luye la nga xam ne mooy ñam mi ngi noonu di daal nodd gi fan ah jot na waaw kon ñu ñu ñu ñu nodd mbokk julit insha allah wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi taan loolu mooy la gën ci jëflante la gën ci jëflante comme niñ ko waxee ci wàllu wàllu wàllu tool bi au lieu ñuy jëflante ci pay ñu jëflante ko ci xaalis surga bi it la gën di jëflante mooy ngeen jëflante ci xaalis moo gën ngeen di jëflante ci mbay ndax da ngay gis surtout njëriñu surga bi sax da ciy gën a nekk ci loolu ndax bu ngeen jëflante ci mbay naam mën na caa gane waaye mën nañu bay ba tool bi jeex te dara du ci ñori ci boobaa surga bi day perte al day perte ñaqam yépp amul lenn lu mu cay am looloo tax jëflante ci liy génn ci tool bi lu dagan la mooy dañ jàng musaaxaat wala muzaaraa waaye nag la gënoon mooy jëflante ci wàllu xaalis nga xam ne surga bi moom dañ koy fay ñaqam tool bi nekk na lu am ak lu amul yépp moom ñaqam du nekkul luy niil mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam mu ne dañ ne képp koo xam ne dañ la sant nga arrosé tool ngay arrosé avant meññante mi di génn nga dem sa yoon dañ ne kooku moom perte na lépp amma ki nga xam ne dafa arrosé ba meññante meññante mi génn mu dem su boobaa borom tool bu mën naa jël ku ko yeggale bu ñu paree meññante bi ñu xool lan mooy wàllam ñu fay ci ko ko yeggale la ca des moom nga xam ne moom la yeeyoo su desul it mu xam ne moom perte na waaye daal kañ lay yeyoo am ci dara mooy arrosé na ba meññeenti mi génn waaye avant meññeenti mi génn kooku mu amul benn àq ci la nga xam ne mooy àq ca tool ba loolu moo addi ci wàllu googu yi naam allahu aalam naam waaw bismillah ba tey dañaate waaw ala kulli ala kulli xaal bu dee lu ñu tuddal mu fawada mooy ay nit dañoo bokk liggéey bokk ci xaalis ku nekk bàyyee sa morom carte blanche moom lu ko neex mu tëre lu ko liggéey bi loolee ci façon liggéey yi ñu jàngoon ci paase la mooy ku nekk wóolu nga sa morom ci ne mën na signé ay contrat mën na fay ay bor mën na jëflante loole da ngay gis ne mbir la boo xam ne ni bu mën a nekk la te la nga xam ne mooy wàllu wàllu liggéey bokkul ak yeneen yi nga xam ne waxoon nañ ko ci ay mudaaraba ak yu demee noonu ala kulli xaal cosaanu liggéey daal mooy képp ci ñoom jublu sellal ak dimbali mbokkam loolu mooy la nga xamante ni mooy cosaan ci liggéey bu mu mën a doon mi ngi doon wallahu subhanahu wa taala alam naam naam dañ ne bu dee ñoom ñoo bokk tool bi ñoom ñoo bokk seen tool ñu liggéey tool bi ba tool bi mat ñi séddoo seen mbay ba ñu séddoo mbay ma ki nga xam ne dafa am lu mat nisaab dañ naan ko génneel zakat ki amul lu mat nisaab kenn du ko wax génneel zakat loole mbir la boo xamee ne nii day am masalan tey jii ay nit associé woon nañu ubbi benn bitig bitig bi bi ñu ko ubbee dem nañ ba jëmi def na un an da il faut ñu xool buñ ko séddoo woon buñ ko séddoo woon ku nekk la nga am bu mati nisaab am mat nisaab ka nga xam ne lu mu am ci bitigu moom matul nisaab amul amul lu dul loolu dañ naan ko du génne zakat moo tax ñu ne la nga xam ne moom mooy alal du ñu bokk ñu boole lépp di ko génn zakat loolu ci ak sàmm la nekk ak sàmm lay am te bu boobaa it dañu naan ñoo bokk fu ñuy fanaan bokk fu ñu leen di sàmmi mais bu dee yeneen alal yi même buñ ko boolee bu zakkat jotee ku nekk dañuy xool la nga xam ne moom nga ca am moom nga day koy génne mais na société yi nekk fii rek nga xam ne ay day brasser des milliards na nga xam ne dañ ca am ay ay ay ay ay action ku nekk yaay war a xool yow sa kemte laay la nga am ci sa alal si action nga génne ko sa zakkatu bopp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal waaw des na ay gaaw waaw koo xam ne nii du jullit kooku moom islam topp ko azaka bu doon te ne ne état islamique dafa nekk ñi dul jullit ñoom dañuy fay impôt chaque année dafa am impôt bu ñu leen di teg moom la ñuy fay seen diine nag ñu bàyyee leen ko ñoo xam buñ cey génnee ay ay zakat ak yépp ñàkk koo génne islam bu leen toppati loolu doonte ne ni seen diine am na génn zakat seen génn zakat nag dëppwul ak suñ génn zakat ndax xam ngeen suñu borom mu ne ku nekk da koo defal kullin jaal na minkum shariatan minhaja ku nekk da koo defal sharia looloo tax ba yonent yàlla Isa bokk na li mu njëkk a wax suma borom awsaani bi salaatin wa zakat maa dumtu hayya daf maa sant may dëra zakat donc yahud yi ak ahlul kitaab yi suñu borom mu ne wa maa umiru illa li yabudu llaha muxlisin lahu din wa yuqimu salaa wa yuutu zakat kon ñoom islam tëral na leen ñu génne zakat seen sharia ñu xam nuñ ko cay génne mi ngi noonu ndax boo xoolee cosaanul islam zakat da daan nekk coobarew waa ji bay ba pare islam ne na ci jël aq bu ñu xam jox ko la nga xam ne mooy fuqaraaw yi ba demee ba Madina nag la ko islam doog a tëral ne il faut nga am temps temps bi nga am temps nga ciy génn loolu mooy tax ba ñun ak sunu sharia seen sharia bokkul waaye daal ala kulli xaal durit yi ñoom ku ci mat sa nisaab da nga ko war a génne la nga xam ne moom mooy zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax may nañ la nga toog ci bàmmeel bi ziar naam bu dee ne toogaloo ci kaw bàmmeel bu la neexee nga toog nga nga nga toog ñaanal ko donte ne la gënoon a dëppoo ak sunna mooy nga taxaw nga ñaanal ko waaye it bu la neexee nga toog nga ñaanal ko loolee fii ak toogaloo te la nga xam ne nii moom mooy ab bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ànd ak sahaaba yi bañ demee di waajal pax bi pour suul ko ko mu ne bara ibnu azib nee na yonent bi toog ñun ñu toog wër ko mu sëgg ci xadis bu gudd kon armeel terewuñu ko toog ci armeel li ñuy tere mooy toog ci kaw bàmmeel wala jóg ci ab bàmmeel waaye bu dee ne ci suufas armeel wóor na la ki nga toog moom du armeel terewul la nga toog mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam donte ne la gën a dëppoo ci sunna ziar mooy nga ñëw jàkkaarloog néew bi taxaw ci kanamam pas taxaw jublu penku bu la neexee taxaw jublu penku waaye na nga jàkkaarloon ak moom ne ko asalaamaaleykum sëñ diw mi ngi noonu ñaanal ko yàlla ñaanal ko njéggal loolu dañuy gis ne moom mooy gën a dëppoo ak sunna tonte ne boo jàkkaarloon penku it baax na wallahu subhanahu wa taala alam naam dañoo génne azaka pare seddoo ala kulli xaal loolu mi ngi aju ci ñoom ñi siq liggéey bi ubbi nañ benn bitig yow da ngay génne azaka man damay génne azaka am bitig bu ñu ubbi ñu jox ki ki nga xam ne mooy contrôler bitig bi wala contrôler société bi ne ko kat bu at mi jeexee génneel azaka kooku moom bu génnee azaka bi ci seen ndigal génnelal na ko ñëpp soo gisee kay lu ñu wax mooy ñoo xam ne amuñu lu dul bitig bi ñoom génn azaka waru leen léegi nag te bitig bi bu ñu ko séddoo yoon it kenn ci ñoom du am nisaab su boobaa dañ naan zakkaat waru leen ka ca zakkaat war moo ko am nisaab li ñuy wax rek mooy duñ ne alal duñu boole bu ma tee nisaab alal ji day génn zakkaat déedéet balaa génn zakkaat fokk ñaka moom ku nekk am sa nisaab bu bopp waaye ñu ko wax répété ko répété waat alal du ñu boole ñu koy génn zakkaat te boole ga loolu ci jur lay am ak jur moom loolu da cay valable mais bu dul ak jur ku nekk sa nisaabu bopp la ñuy xool ci yow wallahu subhanahu wa taala alam naam zakkaat ah ki nga xam ne kii moom amul suuf liggéeyu dafa ñëw rek dafa jiw waaw ñu d'accord ci bu ñoree nanga muy koy séddoo kooku moom itam mbaa du am ci même matière bi moom moo am ci yokk parce que da koy jox par exemple cinq cent kilos bu ñoree mën na am sax une tonne wala deux tonnes te moom gerte la joxe jox jox ak gerte waaw dañoo def dañoo def lu ñu tuddee muzaraa muzaraa bi ñuy def mooy loolu mi ngi mel ne rek tey ki am suufam xam moom it gerte rek la joxe moom suufa sa rek la yor gerte la joxe na waaj kaay yaay jël gerte gi demal ji la nga xam ne mooy moo moom nga ciy jële nga ñëw nga jox ma ñu daal di seddoo ci wàllu googee la ñuy gisee ne moom lan nooy différence bi rek mooy kii moom moom suuf bi kii moom moom jiw yi comme nag kii moom dafa doon loo xam ne dafa joxe jiwu jiwu bi mu joxe du bor bu mu ko lebal mooy dañoo def mu amala ba nga xamee ne bu perte amoon moom du ko wax mu ko fay ma lebalu ko ko da ko ko dañu def mu amala seen diggante loo loo loolu waaw loolu risque la ñoom ñaan ñëpp ci jël risque donc waa ji mënoon na joxe 500 kilomètres ba pare perte lépp loolu li moo tax bu bu gañaay amee nit ñu bokk gañe fekk ne kenn du ci loru wallahu subhanahu wa taala alam wa ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu ñu ngi waxit la la la la borom ñay borom xam-xam ñun dañuy leen di wax la borom xam-xam yi wax waaye la borom xam-xam ya doon wax ñoom ñoom Malick ak yëpp mooy dañ naan ah lii la ñu wax tey kat li ñu wax tey ëllëg mën nañ tey dellu gannaaw yaa ngi dégg su ko defee li ñuy ñaan toujours rek mooy lépp lu ñuy wax yal na dëpp ngërëmal yàlla lu ci am jumte it yal na yàlla xamal ñu ko bañ dellu siwaat ne lii jumte la woon mi nga noonu képp koo xam ni nit gis na leneen dégg leneen feneen mu safaanoog lu ñuy wax nga laay mu laayu ñu ci biir dana ko jëriñ jëriñ ñu yal nañ yàlla dëppoo ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain